jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ki nga xamante ni mooy Baye Djily ñoo ci deuxième partie bi deuxième partie bi nag ñu war ci waxtaanee li nga xamante ne mooy écurie euh, Mor Fadam palmarès bi ñu jotee def ren ma ci dalal Baye Djily Baye Djily maa ngi leen nuyu. Ousseyn maa ngi fay di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi di la jaajëfal fu euh, di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay euh, di leen siyaar bu baax a baax a baax a baax. di leen siyaar bu baax a baax baa ji li tey ñu may waxtaanee li nga xamante ne mooy équipe moo fadam seen palmarès bu ñu jot a def boo xoolee def nañ 9 victoires 15 défaites benn sans verdict. noo gisee boo palmarès. Euh, école de lutte verbale. Euh, moo fadam euh, tey moom la ñu fas yéene waxtaanee ñuy ñaanal père Mor Fadam yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana. fële mu jëm yàlla na ko dàqal lool fii mu jógee. ndax kenn la koo xamante ni euh, da doon dundal làmb kenn la koo xamante ni yoroon na ay xale doon leen tàggat ba ñu doon tey li ñu doon commencé par guy gi nga xamante ni ci équipe ba la nekk jaar ci loxoom te moom fa daan ko lu nekk euh, ku ci mel ni Sakka Dior moom it ñu koy ñaanal fépp fu mu nekk rek yàlla defal ko jàmm defal ko xéwal ba lépp lu mu am rek yàlla defal ko ci lu moom it foofu la nekkoon moom saa Dior gis nañ ko xale yu mel ni ay mbaytin 2 ak beneen mbaytin bi mu ngi fa mbaytin 2 mu ngi fa mbaytin 1 mu ngi fa yeneen xale yëpp mu ngi ci écurie boobu di école de lutte Père Mor Fadam nag mu doon loo xamante ni euh, parcours la comme yeneen écurie yi ndax duñ dalee wax ba tey yi bu ci nekk Ouzin bu ñëwee li ñuy gis rek day doon loo xamante ni dafay wàcc. Mhm. Euh, amul benn équipe boo xam ne tudd nañ ko fii rek gis loo xamante ni équipe bi liggéey nañ ko muy liggéey boo xamante ni ci gàtt euh, cinq mois yi gàtt na lool ci saison bu làmb mais équipe yi li ñuy gis ci ñoom rek chaque jour mooy am na lu leen manqué. parce que saa suñu waxee euh, li nga xamante ni mooy seen résultat rek mooy équipe yi am na lu ñu manqué. li ñu manqué nag loolu lañ mënul xam lan la ba tax école de lutte euh, Père Mor def quinze combats. Mhm. am ci neuf euh, vingt vingt vingt vingt ñu ngi def vingt vingt euh, ñu ngi am neuf victoire ak quinze défaites mu nekk vingt cinq combats kon loolu dafay doon loo xamante ne vingt cinq combats gaa baax écurie boo xamante ni cinq ans cinq mois yi saison bi ni mu gàrtee benn écurie am ci vingt cinq combats moo lay wan ni ñooñu euh, écurie bi ñu ngi dox ñu def ay jéego boo xoolee ku ci mel ni Cheikh Super Jamono euh, combat bi mu waroon dox ak moo Mori Cargo Euh, ñëw na ba ci làmb ja ñu doog a gis ay blessures yu méttee méttee yoo xamante ne dal na ko te dara da waral ko lu dul bi muy génn buntu këram euh, mbooloo mi niñ ko ñaaxee xam nga rek làmb mbiru jom la ak ngar mi ak njàmbaar mu waral mu jam boppam te yëgul ni sax moom jam na boppam mu jam boppam ñetti jam-jam yoo xamante ni jam-jam bu ci nekk métti woon na trop mu ñëw ci làmb ja yàlla dogal ñu jox Mody Cargo victoire bi victoire boobu mujjee nañ koo kase parce que nee nañ sans verdict la mujjee doon waaye day doon loo xamante ni Pierre xëy na moom moo manqué xale yi mais fi leen peer féete woon am na ñeneen ñoo xamante ni tey ñu ngi teg seen tànk ngir féete leen fi raw fi leen peer féete woon mm-hmm. kon loolu nag bu amee ñoom xale yi fa nekk ci écurie ba nañ boolawaat góorgóorlu parce que vingt cinq combat boo ko amee ci ci saison bu mel nii saison bi nga xam ne pandémie bi am na ci lu baree baree bare tag na ci làmb nga am ci vingt cinq combat loolu écurie bu ko def bu ñu defoon jéego rek am am tey am tey lu mel ni quinze victoire comme tey nombre de défaites yi parce que 15 défaites lañu ñu am 9 victoires ñoom bu ñu amoon 15 victoires am 9 défaites mun nañu tey ñoom ñooy jël meilleure équipe ci ci ci ci saison 2019 2020 bi. loolu mooy wan ne xale yi rek war nañ mën a ñaaxaat seen bopp Ouzin war nañu mën a góorgóorluwaat ci li ñu nekk war nañu mën a wanewaat njàmbaar ak fulla ak fayda ba li nga xamante ne Père Mor Fadam moo leen ko bàyyee ñu yëkkati falaam boobu ci kaw am na ci ñoo xamante ne am nañ combat. ku mel ni guy gi nga xam ne moom mooy leader équipe ba fi mu toll nii combat mu rëdd rek taxaw na. am na combat bu métti. waaw combat combat la boo xamante ni combat bu neex la Ouzin. ndax combat boo xoolee coow li demaa na te làmb ji taxawagul. waaw parce que làmb noonu lay demee Ouzin làmb ci coow lay commencé. tey ci coow lay jeexee parce que ku xam guy gi xam ne euh, séentuwul woon bëri Reug Reug. Mhm. li ko waral mooy moom doon na séentu am na séentu parce que mbër nag en chaque fois noonu lay bëree. day jàpp ne chaque jour mun naa am ku gën ki mu yaakaar mais nag boo demee ba am. mais lan moo waral mu yóotu Eumeu Sène ak wàcc bi ni mu gaawee. Hmm. ndax am na ñeneen ñoo xam te war naa mën a bëri ñoom ku ci mel ni Garga Mbossé. Hmm. ku ci mel ni keneen keneen mu jóge fa dem jëli Reug Reug est-ce que est-ce que du du du du loo xamante ni maanaam dafa amul li ko gënal. ba mu jël li fi sës tamit. waaw parce que xam nga guy gi dafa bëre. Euh, daanu ci contre am ak Boy Niang mhm. mu xam ni fi mu toll nii làmb am na ci ñu bari ñoo xamante ni gis nañ ni état de forme bi muy indi ci làmb du état am te ku xam guy gi xam ni jàmbaar la xam ni guy gi xam ni vrai combattant la boo jëlee avance am signature contrat am day neex u làmbam day neex bu bëree ba pare dafay neex léegi nag kooku bu demee bëreek Boy Niang Boy Niang daan ko mu jógee ci défaite bi nga xamante ne moom la am contre Ama Baldé mu ngi koy bañ naan Ama daanu ko parce que bu zibilee ci ndam loolu euh, mu bàyyi Ama Baldé waaye ndam la keroog bi muy génn Ama Baldé bi muy génn arbitre bi moom la jox ndam kon mun nañ tuddee ni loolu ndam la. Mhm. Ama Baldé daan ko mu Boy Niang daan ko mu may Siteu sens. bi mu jëlee Siteu mu am ci ndam léegi nag gaa bi mu amee Siteu am ci ndam gis nañ ni guy gi mii euh, place bi mu nekkoon ci làmb guy gi mu ngi koy jëlal moo waral tey mu tàllal loxo ne may naa sumay rakk sens nii réussir nañ li ma leen mayoon mais kii di Siteu euh, réussirul léegi na ma ki nga xamante ne mooy am na seen may sens mu ngi wax na Eumeu seen bañul woon may ko sens mais Eumeu seen dafa gis leneen lu gën guy gi parce que bu ñu la proposé guy gi wala Bombardier tey yow boo nekkoon Eumeu Sène kan nga ciy jël. Bombardier laa jël. moo tax Eumeu Sène def choix boobu dem jël Bombardier du daa bañ a bëri guy gi guy gi xam ne ay naataangoom ñu yaakaaroon ci làmb ñëpp am nañ koo combat mu xam ne fi mu toll nii euh, promoteurs yi kay wax yëpp làmb gargamboose ak Sa Thiès lañ gën a bëgg ka làmb Garga ak Gouye Gui làmb Garga ak Sa moo gën a neex ñu ne Garga Mbossé ak Reug Reug wala Reug Reug ak Sa te loolu làmb la ñu xam ni euh, làmb ji làmb ju neex la guy dox diggante guy Gui ak Reug Reug parce que ku ci nekk mbër la boo xamante ni bu dugg see ci làmb mu neex mu waral ñu tëgg combat bi ñu ciy siyaaraat bu baax a baax a baax waa waa GFM. Mm-hmm. Euh, ci liggéey bu rafet boobu di ko teg ci loxo maa aussi seen li nga xamante ni moo nekk coordinateur bi ñu leen di jaajëfal bu baax parce que gis nañ ni fi mu toll nii. làmb li ñu doon wax naan làmb daanu na. làmb koy dekkil làmb muy kii ñeneen ñu ngi ñëw ngir soqaliwaat làmb. ñu demee ba site internet yi di di tëgg làmb euh, moo lay wan ne ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax. waa Equivox. waa Equivox nga xamante ni ñoom it ñu ngi def jéego parce que ku dëgg Garga de boole kooku xale bi nga xamante ne moo dëkk Langsar. Maama Lamine Maama Lamine mhm. nga xam ne ndeysaan xale combat bu neex la. te ñu ngi toftal yeneen combat ci kaw mais Ousseynou daal loo mën a xam mooy école de lutte euh, Père Mor Fadam na xale yi defaat jéego xam ne bu ñu góorgóorloo tuuti rek. Euh, mais fi mu toll nii écurie moo fa dem guy gi mooy tëdd fil bi. Hmm. du ñu pousse ci guy gi ba noonu nañ taxaw seetlu ci guy gi. ndax damaa gis guy gi bëre ak Zos. Zos daan ko ñu bërewaat. Hmm. ñoom ñaar mais bi ñu préparé bi guy gi dafa dem jël loo xamante ni bokkul ci moom. Hmm. mu ñëw kenn xàmmeewu ko. ñu naan est-ce que guy gi la mu naan ay li may naan ak li may li may lekk la. repas yi <laughs> waaw ak paanu soow yi may naan paanu soow moom loolu dafa yéeme lool. ñu ñëw gis guy gi boo xamante ne xàmmewuñ ko mu bëre. jëlee ci leneen loo xamante ni bokkul ci moom mu beese mu beese forme boo xamante ni kenn xàmmeetu ko mais bi mu ñëwee contre mook Siteu mu liggéey am ci ndam mu xam ne kat ndekee liggéey dong mooy maye ndam ndax boo xoolee maa ko dégg moom guy gi bi mu bi ñu ko invité tout récemment 2STV mu toog ne moom fi mu toll ni day nooy liggéeyul mais su liggéeyee képp ku dul rëgg sax bu taxawee ci kanam dale fil nga jàll est-ce que nekku ni dafa gëm boppam ba trop moo tax mu jël rëgg-rëgg est-ce que nekku tamit moom combat bi mu jël nii non Ouzin day naxaate parce que boo xamee guy gi démb xam guy gi mi nga seetaan bërki démb. Mhm. nga gis avant bras yi ni mu toll. gis macha allah état de forme bi. mu ah, gis ndax day xuuxalaate. non day naxee parce que guy gi boo xoolee xam ni lu mu mën ak lu mu mënul mu koy entraîné. parce que nag xale bi mu yor euh, xale bi mu jël dafa doon xale boo xamante ni bi bi bi làmb dee làmb ba tey li mu def ci lutte simple amul benn mbër boo xamante ni mës na ko fee def. loolu am na amul léegi nag xale boobu gëm na boppam. xale boobu jàpp na ni làmb fi mu toll ni képp ku mu dajal moo ko mën dem na ba mujj gi muy muy muy xalab guy gi mais na def ndànk parce que guy gi champion la guy gi champion la guy gi mën na bëri te gis nga mbër benn for rek nga mën ko ci làmb mën naa tëj ah, mhm. euh, Reug Reug nag champion la xamante ni kenn werantewul ndaanaanam ci làmb gis nga lim def chef de l'état gis nga lim def ci bëre simple bëre dóor bi bi mu fi ñëwee ñi nga xamante ni lañ jàpp ñoo gën a tëj mosu ñoo daan moo leen daan ku daan ab Ablaye Ndiaye daan euh, booy Fass bi daan Gris kon keneen ku mu la wax mun na laa daan ci làmb gëm ko parce que ñooñu ay luur la. Mhm. te ku ci nekk technique yi am na benn bëre boo xamante ne mu ngi ci ñoom mais guy gi li tax mu dem États-Unis duurak la mais xëy na combat bi da koo fekk foofu mais Ousseyn lu leer laa lay wax guy gi ñëwagul léegi. te lépp lu mu mën ci combat bi dina ko def parce que combat bu mu fonk la man gis naa ne ni muy waxee. làmbam ji moo rëg-rëg combat bu mu fonk la waaye rëg-rëg mu ngi koy xamal chaque jour mu ko fokk benn fonk naa ko fukk kon ñoom ñaar xam naa ne làmb ju neex la bu ñu amee date incha allah ba jàngoro bi jóge fi ragal naa ne dinañ bëre te dinañ laale ci làmb ju neex ñoom ñaari xale yi mm-hmm. mais léegi ñu ñëw ci palmarès bi mm-hmm. palmarès fi jot a yëpp ci écurie yi dañu xool ne défaites yi chaque jour muy ëpp victoire yi. Mhm. lu waral loolu. li war a loolu mooy saison bi moo gàtt. Mhm. parce que bu ñu nee cinq mois moo am ci saison bi. Mhm. cinq mois yëpp presque euh, ñi ci bëri mën nga koo tudd parce que bu ñu demee ba vingt trois promoteurs ñoo organisé ak promoteur yi nekk ci làmb nu ñu bare. ñu ñu organisé ci trente sept journées da ngay xam ne kon saison bi moo gàtt. parce que suñu papa sëñ Modou Niang rek danaan tëgg ba pare suñ paree ñu ko ñaata journée nga am mu ne tëgg naa lu mat 40 journée wala tëgg naa lu mat 37 journée nga laaj ku mel ni idaali ñu nga mu ne la tëgg naa 4 journée wala 5 nga laaj ku mel ni euh, Fallou Ndiaye mu ne tëgg naa huit nga xam ne loolu yëpp bu ñu ko demoon di ko xool journée yi dina nakk lu mat cent cent et quelques journées yoo xamante ni promoteurs yi ñi ko tëgg moo leen calculer war nañoo mat ci ay trent cinq promoteurs wala trente promoteurs te ren saison bi gis nga ci ñeneen promoteurs yoo xamante ni ñëw nañ ngir ngir ngir gën a suqali kon léegi nag boo boo gisee écurie yi daanu bi ñuy daanu mooy xëy na saison bi euh, gàtt gi mu gàtt te leader écurie yu bëriwul parce que ñi nga ci yaakaaroon yëpp bariwul ku mel ne xam sa cosaan jour bi ñuy annulé euh, lamb yi. Mhm. activité yi samedi dimanche boobu la ñu waroon bëri di gën soq ak gàmmu gay. gàmmu gay moo lay wan ni rek saison bi xam naa ne li mu gàtt moo waral euh, defet yi tegloo ci écurie yi te ñu bëri ñëpp ay xale lañ parce que écurie yi d'habitude bu ñuy doog a départ xale yu ndaw yi la ñuy bàyyi mu dem. mais leader yi après ponkal yi nga xam ne écurie bi am nañ ci moom cër yaakaar nañ leen ñoom ñooy tëj bokk nañ ci ñiy tëj écurie yi boo xoolee écurie yoo ñoom daaw ñoo jël ñoo jël meilleure écurie ci saison bi 2019 2020 mhm. euh, léegi nag gis nga fi mu toll nii ñoom it ñu ngi def euh, sept victoire sept défaite mhm. moo lay wan ni rek làmb ji saison bi fi mu toll moo taxoon bëri Ousseyn di combat yi di demee noonu waaw ñu jéem a jot ki nga xamante ni muy coach bi muy Père Ngay Loum mm-hmm. woo ko waxtaan ak moom ci palmarès bi waxtaan ak moom ci écurie bi ak lépp. maa ngi lay nuyu. waaw di la bu baax a baax. waaw maa yaa ngi ci Wassare làmb en direct. allo. alo ma ne ma yaa ngi biir Wassare en direct. waaw waaw waaw maa ngi lay tey ñu doon waxtaanee ci li nga xamante ni mooy palmarèsu euh, seen écurie bi. waaw palmarès dañoo gis ne am ngeen 9 victoires quinze défaites. ah 10. 10. am ngeen ñaata victoire ak ñaata défaite ngeen am palmarès écrit bi. ak 15 la. ak 15 euh, défaites ah. ñaari waaw. waaw léegi ñu doon waxtaan ci écrit bi. xale yi gis nañ gis nañ xale yi boobaak léegi làmb ji bi mu tijjee am ngeen ci 10 victoire 15 défaites ak 2 match nul waaw ñu bëggoon nga waxtaanoon ci tuuti rek yow comme comme naka rek comme yow soxla quoi nga xam lan lan ngay waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. waaw maa lay fay. noo def ak coono mbaa yaa ngi am jàmm. waaw tey dañ doon waxtaan ci bilan écurie euh, école de lutte Père Mor Fadam. ñu gis ni écurie bi ni doon defee jéego jëm ci kaw. Mm-hmm. ñu gis ni ren saison bi gàtt na gaa mais dañoo gis écurie bu mel ni Père Mor Fadam écurie bi ñu ngi bëre 24 combats. Mm-hmm. Euh, ñu ngi ci am 9 défaites ak 15 euh, 15 ak 9 victoires. non 10. 10 victoire. waaw ak 200 verdict. waaw léegi dañoo bëggoon nga nga ñëwal ñu ci combat yooyu ñaari 100 verdict yi kan ak kan la. ñaari 100 verdict yi. Euh, euh, naka la ah. dafa mel ni Cheikh Super Jamono ci la bokk. Cheikh Cheikh Super Jamono waaw. Mhm. ak. Euh, beneen boor bi maa ngi koy xaw a fàtte léegi. waaw mais en tout cas daal ci maanaam moom am nañu deux deux euh, deux cent vingt huit daal am na am na ci. mais dama xaw a fàtte beneen boor bi xam ngeen. Hmm. mais booy ma kii la booy ndong. booy ndong. waaw. ah booy ndong waaw. booy booy booy bawol bi quoi booy booy bawol. Hmm, hmm. mais mais li ñu jaaxal mooy écrit bi école de lutte Père Mor Fadam dañ doon gis ni mu ngi def jéego jëm ci kaw léegi defet yi ñu gis nii ci moom lan la lan mooy problème mu écrit bi. waaw ah, non problème mu écrit bi léegi moom du problème mu écrit bi rek problème mu la. Mhm. waaw problème mu làmb la problème mu écrit problème mu làmb la xam nga xam nga làmb léegi dafa dafa doy waar doy waar boo xamante ne léegi ah, léegi boo boo boo xam nga ki war a jël bu jëlul. Mm-hmm. ki war a jël man li ma gis mooy ki war a jël dafa war a jël ki warul jël xaar. Mm-hmm. maanaam ki nekk en forme. Mm-hmm. entraîné ba nekk atom. kooku moo war a jël. ki warul jël. ki entraîné wul liggéeyoo waroo jël combat. mais fan lan mooy lamb ji léegi. Mhm. dafa. soo mënee ay bolok rek. waaw. dem bi ni naa jaay ay bolok ñetti bolok. Mhm. Mhm. boo gisee difficulté yëpp loolu kon fi mu toll nii dafa mel ni kon promoteur yi ñu yaakaar ci làmb pour ñu jàppale xale yi dañuy dundee làmb ji waaye dundaluñu làmb ji parce que loolu bokkul ci ñuy dundee làmb. kon sama tool moom promoteur yi instant bii ñu toll nii boo mënul jaay boo mënul jaay bolo buñ la jox combat. nekkal nekkal grand soo xale yi surtout xale yi nag xale yi moom lañ jëm waaw. boo liggéey dafa nekk boo la. boo mënee déplacé wu tuuti réseau baa ngi daw de. ma ne boo boo boo boo liggéeyee laa wax ba nekk woo topp ba ñu soxla la. Mhm. am nga faam mais su fekkente ne yow yaa leen soxla. Mhm. yow yaa ngi ci problème. Ah, boo mënul boo mënul ay problème moom pare nga. Mhm. waaw. est-ce que loolu est-ce que loolu yéen ñi jiite jiite bi dem ngeen déclaré ko CNG. waaw ah, mais kooku kooku kooku CNG xam na CNG moo la ko gën a xam. Mhm. RTS euh, nga wax te ñu gis leen loolu waaw. ñu gis leen boobaa ak léegi ñoo ngi dox seen combat hmm. maanaam ténor yi nga xamante ni ñoo nekk euh, équipe Fadam. parce que ñu ci bëri bëriwuñ ku ci mel ni euh, mbaytin gis nañ combat am taxawoon na mais ba léegi jotul bëre ak ki nga xamante ni muy guy gi boobaa ak léegi ténor yi bëriwuñ lan moo waral loolu. bon mais boo xoolee boo xoolee boo xoolee presque saison moom kenn mënu ci wax dara parce que saison bi baaxul. Mm-hmm. waaw deuxièmement baaxul saison bi passé boo xoolee am na seen def na. def na def na def na benn sortie bu baax. buy mhm. bi waaw boo gisee booy bi ñu doon wax naan moo ëpp coow ci lamb bi guy gi moo ko freiné. ñu Siteu. waaw kon kon waaw waaw kon normalement guy gi heure bi waroon na ko fekk mu amaat combat. dëgg la ah. Mhm. Pambaay xam nga koy bàyyi xel bu baax mais nit fi mu ngi Espagne. waaw mhm. ah, léegi problème bi daal problème bi yëpp ci xale yi la rek. xale yi nga xamante ni ñooy dem di jënd ay combat. Mhm. rek ñoo sonal ñoo sonal école de lutte ñoo sonal entraîneur yi. Mhm. Mhm. mais ñu taxaw ci Pambaay Pambaay ñu gis ne voyage bi xaw na yàgg ñii naan Pambaay est-ce que bàyyi na wala day dellu si waat Pambaay bi ba léegi. non ah, ah, mais ñu gis nag ngeen jël xale bu bëri coow muy rëgg. yéen ko ko digal wala moom moo ko jëlal boppam. ah non guy gi laa guy gi yéen ko ko digal wala moo ko jëlal boppam. ma ne loolu loolu moom loolu moom moo ci mën a tontu. ah loolu Reug Reug mën a tontu. loolu moo ci mën a tontu. moo ci mën a tontu. moo ci mën a. wax. waaw kon loolu ba ko laajee loolu man moom ñu ngi xamal ci li ñu amoon ci waxtu jot la waaye xam naa ni. Euh, sa wax ji ni ma ko déggee mooy. Ah. rëg-rëg yam na client boo xamante ne du xam fu ko yekkalee. waaw waaye xam naa ne wax jooju jotagul <laughs> waaw waaw léegi dañ koy dañ ba beneen yoon xam naa ne incha allah ñu gën cee xuus gën koo yaatal gën cee waxtaan. amul ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. merci beaucoup jërëjëf. jërëjëf. ji li gis nga ko ni ko Père Ngay Loum jàngatee. nee saison ren bi moo baaxul. waaw noo gisee loolu mu wax. mooy wax naa ko ci sama début bi may commencé di di doo commencé émission bi euh, wax naa ko ci début bi parce que naa saison bi ren moo baaxul parce mm. saison bu làmb boo xam ne cinq mois la cinq mois ñi ci bëre mun nga leen a compter moo lay wax ne te làmb daan na bëre daan nañ bëre ba pare plus de deux cent et quelques litres bëre euh, léegi bu demee ba gisuñu loolu da ngay xam ne saison bi moo tollu foofu mais expliqué na euh, li waral loolu war na ne ne équilibre amuñu benn problème équipe bi amuñu benn jafe-jafe waaye làmb moo am jafe-jafe mm-hmm. wax na ko ba wax ci euh, côté boo xamante ni su lu ñëwaat na ci muy promoteur yi nga xamante ni dañuy laaj mbër yi mbër yi dañuy dem ba ci kër promoteur bi di jënd billet mais est-ce que xam nga loolu dinañ ci def émission spéciale loolu dinañ ci yaatal insha allahu mm-hmm. rabbi parce que loolu faw ñu wax ci euh, dugal mbëri yi nga xamante ni xam naa parce que man xam naa ci ay mbër yoo xam ne balaa ñoo bëri dañoo génne ci seen gafaga moo xam mu néew moo xam mu bari dem jox ko promoteur ngir mu tëddul xam naa ci promoteur yoo xamante ni tamit dañuy dundalee noonu ci làmb ji faw mbër mi jox leen nga dog leen a tëggal léegi loolu yooyu yëpp comme dafa bokk ci liy defar lu lu yàq làmb dañuy xool ku ci nekk rek nu mën a rafetee ba ñu defar ko du ma tudd nag benn turu mbër wala ma tudd benn turu promoteur mais ki koy def xam na boppam mbër mi koy def tamit aussi xam na boppam mais loolu yëpp bokkul ci loo xamante ne day defar am te entraîneur yi ñu ngi ciy ñax xale yi nag euh, faw ñuy mbër day am gétt mbër li géttam mooy nga am ay staff bu baax am ay conseil yu baax ñu naan la jaaral fii jàppal fële mais xale yi des fois dañuy dugg ci lenn te buñ ciy dugg du ñu tàggu kenn dañuy dem defal ko seen bopp ba pare wane ni promoteur bi moo ma woo sama combat ak lii après ak say mbokk yéen a ciy sonn. làmm nag jaaxale yi dañ ko bëgg bëgg nañ ko lool waaye lépp looy dugg rek dugg ceeg sa xel dugg ceeg euh, ak sa jom dugg ceeg sa fulla moo waral loolu moom xam naa ne dinañ ci gën a yaatalu Ouzin gën cee wax leneen li mu wax mooy diggante guy gi ak ki nga xamante ni mooy Reug Reug. est que xam nga ne foofu dañoo cax. waaw. parce que parce que gis naa ni euh, bëgg naa wax waaye li mu bëgg a wax mooy wax ji jotagul. te bugg koo njëkkee tamit. te bugg koo njëkkee wax parce que moom mooy entraîneur guy gi. Mm-hmm. te am na loo xamante ne bugg koo jiital wax parce que biñ ko laajee ci biir wax bi lan moo tax guy gi jël rek rek daf ne loolu da war a dem ci mbokki rek rek nga laaj leen lan moo tax ñu jël guy gi. wax moom bu ñu ko bañee bu ñu ko bëggee dinañ wax ndax am nañ adversaire boo xamante ni moom boo bëggee wax di nga wax boo bañee wax di nga wax. non dina neex. Eh, ndaw làmb ju neex làmb ju neex la ñoom ñaari xale yooyu. muy rëg rëg muy guy gi waaye yàlla ñu yàlla may ñu yeggale ko jàmm ak salaam. mbas mi jóge fi yegg ci euh, tal ak fekke ba ñaari mbër yépp ku nekk nekk ci jàmm amateuru làmb yeeg ñiy seetaan làmb yeeg reporter yeeg ñëpp nekk ci jàmm ba ku ci nekk euh, liggéey bi nga ci bëgg a def yàlla suñu borom kàttanal la doole la ci ba nga def def comme ni nga ko bëggee. ñooy jaajëfal bu baax a baax di la wax ne temps bi xoj nañu. Hmm. ñu sant bu baax a baax di gërëm ah ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw maa ngi jaajëfal képp koo xamante ne yaa ngi béggee wasaare làmb maa ngi jaajëfal képp koo xamante ne yaa ngi ñuy seetaan yaa ngi ñuy woo di ñu conseillé gis nañ yéene bu rafet bi ngeen am ñu ngi jaajëfal équipe bi yëpp aadama maa ngi koy jaajëfal moom mi nga xamante ni euh, mooy le grand cadreur moom moom lu mu cadrewul baaxul sama waa ji euh, sëñ Basiru mi nekk ci son bi nga xam ne dama ko dàqoon léegi ñëwaat na indi naa ko moom moo nekk ci son bi ma koy jaajëfal bu baax a baax a baax kàggu sama xarit bi moom it maa ngi koy jaajëfal di jaajëfal képp koo xamante ne rek yaa ngi bëggee wasaare làmb fu waay mën a nekk leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni ma du tàqali ko loolu la incha allah leen tàggoo tàgg boo xamante ni du am tàqaliko Baye Djily maa ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di la wax ne tey yaay sama kontaan naa ci yow. maa ngi nuyu équipe Wassare bi ñëpp di nuyu sëñ Bas di nuyu Adama ah, di nuyu kàggu ba ci Fatima ak ñi fi toog ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax nuyu ki nga xamante ni mooy Cheikh Niang nekk sa tukki doomu ndey kàggu xam naa ne matt bi moom tey gis na lool waaye dinaa la ko yëkkatil doolu la ko bu baax a baax kon nga xamante ni mooy Cheikh ñaar di gërëm ñëpp nag di leen wax ne tey jàngat làmb li leen andi loon équipe moo fadam di leen jox dox daje ba beneen yoon incha allah.